kom jangat ci jaar-jaaru sayduna muhammadin alayhi salatu wassalam tolon ci xare bu ñu tuddee xaswatul xandaq mooy yéefar yi bi ñu ak seen mbolo ñew bëgg dal ci kaw julit ñi ta yoonte bi won salman bobu ci ñu gas kambu gu reey googu ba nga xam yeferi biñu yi bi ñu agsee mënuñu jéggi dugg biir madina boobu nag madinatu munawwara am na ñu fa nekkoon desoon fa di ay siif ñu ko tudd ñu leen di tudde banu xuraysata ndax wax nañ ni yonente bi bi mu ñëwee madina dafa fekkoon ñetti famille ñëpp ay siif lañ ñeneen ñu ñu leen di tuddee banu nadir beneen famille bi banu qaynuqaain beneen bi di banu xuraysata ñaari famille yee nag war nañ yonent bi ba jàppante ñoom ba mu génne leen mu des ba nu banu xuraysata bii banu xuraysata bii nag ñoom ña fa desoon biñu ci xasootul xandaq bobu biñu gisé gisee bi sallallahu alayhi wasallam limu def ci madina moy kambu gi mu gas ba gaay yi ñu dugg ñom ñu japp ne dal li occasion la bo xam war nañ ci jaar ngir li yëfar yi bëgg ci julit ñi am ñoo ñoom ñom banu banu xuraysata ñu fasiyene taxaw ngir fecc kóllëre bi doxon seen digeunte ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne ne dañoo fessel fessel seenug nono ak seenug jappale ci yeferi dañoo wax yoonte bi dal ne ko li nga def ñun d'accordu ñi ñun dal yeferi lañ andal lepp luñ man nak dañ ko def ngir jappale len ngir ñu am ndam ci sa kaw ndax ñom bobu jappon nañ ne rek xare bii daal limub yéefar yi rëy na rëy goo xam ne nii jullit ñi tey mënuñu cee génn ñu ne ah kon nag occasion la ginnaaw lii moom jullit ñi tey moom bu leen ñi jàppee dañ leen rey bañ jeex kon nañu fas yéene ànd ak yéefar rek ginnaaw ñun ñi ngi ci biir dëkk bi mënuñoo génn waaye ñoom ña ci bitti ñun nañ leen nekkal fii ñu ne luñ ci man ci biir dëkk bi ci rey jullit ñi nañ ko def ñu tàmbali nag. di dugg ci biir xur yi di dab julit ñi di leen ray loolu nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam jot ci xamne wa banu khuraysata kat ña ngay def li moy ña ngay fexé julit ñi ña ngi am ñu bari ci ñom ño xamne ña ngi leen di sakal pexé yonente bi yalla xamal ko li xew jullit ñi it xibaar yi ñu am ci ne waa banu Xuraysata ña ngay fexeel jullit ñi ànd ak yéefar yi bi yonente bi xamee lépp nag mu fas yi ne jug ci seeni mbir waaye xare boobu fa mu mujj mooy benn guddi rek lañ tëdd ñoom yéefar yi ca bitti kàmb ga ndax fa am nañ ay fan ca bitti mënuñoo dugg ci dëkk bi ngir kàmb gu rëy googu léegi nag fan ay fan ñu toog foofu samp seeni xayma di fa fanaan di fa yendu ngir rekk wut ay pexe yuñ mën a am ba tàbbi ci biir dëkk bi ngir faagaagal jullit ñi waaye sunu boroom ak i dogalam ak jàppale gum jàppale jullit ñi benn guddi lañ tëdd rekk sunu boroom wàcce ngelaw lu bare bare bare bari dañu call meer boo xam ne bim ñëwee dafa buddi xayma yi daane seeni bagages yi tiital leen ba noppi ànd ak sedd bu méttee méttee seen taal yi ñu taaloon di ko niitoo yépp fay seen xayma yi xottiku loolu nag tiital leen ñu jàpp ne euh, li xew yéef jullit ñi danañu danañu jéggi wala ñu def ay pexe ngir fekk si leen wëri dëkk bi ngir ñëw fekk si leen fi ñu nekk ray leen ndax tey kenn xamatul kenn kenn xamatul kii ci jullit ñi la bokk wala ci guddi googu metti ci ñoom loolu ndax ngelaw li bari na taal yi fay na mu lëndam sedd bi metti na ñu bari ci ñoom nag daal di war seeni fas ak seeni gilam daw fas seeni teguwaat yoonu Makka dem ñibbi ci loole la yàlla fegal jullit ñi xeex boobu am ndax xeex bu bu amoon rek mën na am dana metti ci jullit ñi loolu waaye mujjul am ca natt boobu fa la sunu boroom jaarale dugal tiitaange ak njàqare ci xolu yéefar yi ba ñu daw bàyyi fa seeni bagage ci xare boobu nag ñu koy tuddee xasootul xandax kon mu am leçon yiñ ci mën a jariñoo ñaar ba ci njëkk mooy jullit bi fu mu mën nekk rek war nay mën a rafetal numuy sukkandiko ci boroomam xamne lor bu ñewé yalla rek mo la ci mëna a waye waaye it nga sabablu nga def lila war la ca des nga bàyyee ko suñu borom ndax loolu la jullit ñi def ba ñu gasee seeni kàmb ba noppi it waxuñ nek nañu tok xaar leen sukkandiku ci yalla waye dañu def seen pexé bop bu nopi and ak ngëm yalla yalla fekk leen fa ak dogalam danañ ci jëlee ba tey ne sunu borom tabaraka wa taala dimbali jàmm bu dëggal xam ne nii day mel ne dafa néew doole waaye ngëm gi nekk ci moom bu dee dëgg rek lu kàttan gi néew lu am am bi néew néew sunu borom mën na laa dimbali ba nga am ndam gi comme ni nga xam ne noonu la dimbale yonte bi sallallahu alayhi ci ay noonam ci ngelaw loolu mu xam ne wàccee na ko ba mu tiital leen ba ñu bàyyi fa seeni alal daw ba nga xam ne nii xeex boobu mujjul am